sunu jamono ji li ñu ciy gis ak di ko dégg ci mbon jéggi na dayo benn ci yooyu mooy li nga xam ne jamono yi moo nekk actualité muy am ngóor jigéen muy loo xam ne dara dara gënu ko doy rawatina ci sunu réew mi di senegaal muy réew moo xam ne ñeewut kenn ci lislaam ju rafet te dara warulu ko lu dul ay mag ñu baax ñu fi askanoo doonoon ay nit yàlla yu mat sëkk lañu doon joxoon seen dund gépp xam-xam ak taxawal diine ci goxi réew mi yépp ak dëgëral ko muy liggéey boo xam ne dara féetewu ko kaw kon ñooña seeni kuutaay tey ji dara waru leen lu dut sàmm ndono loolu xar ci seen tànku tubay bokk yi ñi nekk ci neen bu ñuy def seeni caaxaan ñi nekk ci dëgg noppi ca day mel ne ñoom ñoo ñee nekk ci neen ñoo am dëgg kon kilifa yi bu ñu noppee ci sofaan yi xew dañuy réeral ñi leen topp te dañuy ñemeloo ña ca nekk ak ña koy wasaare te bu boobaa bu kenn jàpp ne mën nga cee mucc ndax ku sa njaboot muccut rek doo mucc te li ñuy sàggane mooy lor njaboot gi ëllëg ku ne war na cee taxaw dox ci wax ci jëf si réew mi sunum réew la ñun Sénégal yi yépp te amul jenn diine ju fi nekk ju nangu am ngóor jigéen lu mondialisation am am teewul nag lañuy jariñ rekk lañ war di nangu muy dugg lañuy yàqal ñu lànk ko sànni ko fële bañ ko nangul kenn rawatina lu méngoowul ak suñu diine mbokk yi nañu sàmm sunu njaboot gi ndax fawuñu ñu layoog ñoom ëllëg yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa nee na doom dina la yóbbu ci tur wu neexut wu mu ko tudde kon xalaatal ci boo sàggane ba yu bon yii xew ci àdduna bi fëkk ko bokk yi bokk na ci ni ñuy sàmmi njaboot gi ñépp maase jóg kar li yàq njaboot gi balaa muy agsi ci ñoom wax naa ba tàyyi ne sunu réew mi yàlla defal nañu ndimbal muy ne koo fi gis rekk am na ci kum bootu maanaam koo fi gis am na kilifa moo tax bu kilifa yi boolee seen bopp di waxtaan di diisoo li ñu bëgg rekkee am ci réew mi noonu bu lislaam bi nag bokk na ci ni muy xeexee lislaam day yoonal mbon gi ba ku ko lànk yoon dal sa kaw waaye bokk yi dëggi dëggi yoon mooy li yàlla tëral ne nañ ci jaar te mbugalum yàlla rekk mat a ragal shadiidil iqaabi di tawl noonu lislaam bi dafa yoonal ne kenn ku ne am nga liberté wax loo bëgg a wax am nga liberté def sa yëg-yëg ma ne bokk yi lu la neex wax ab dof rekk a koy def loo am yëg-yëg def ko tamit yëfi bàyyi ma la yii yépp nag du yëfi jullit liberté bi ñuy woote ñoom jullit bi bokku ca bañ ñu sàkkee te tàgguwuñ ñu moom ñu te bokkuñoo kenn moom subhaanahu wa taala nen yoon waa ngi bu ko kenn wàcc booba lañ ñu tënk liberte amut ci nun ci li ñu yàlla tënk rekk lañu war di dox waruñu ko génn fenn lu ko moy fitnay tey ak musibam ëllëg rekk lañuy jural mbokk yi nañuy jëfandikoo sunum xel di xalaat ëllëg bés penc ba fii kenn du fi sax te alali àdduna ak daraje àdduna jëruñu yenn yi bànneexub àdduna nag lu mu gudd gudd ak lu mu neex neex jeru mbugalum alakhirah lu mu gàtt-gàtt ibnu abbas radiyallahu anhu nee لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا غور نيغا خامني dañuy nuru nuru lu ay jigéen rëbb na tamit jigéen ñi nga xam ne dañuy nuru nuru lu góor am na beneen riwaaya bu ne laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almuxannatina min alrijali walmutarajilaati min annisaai yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na góor ñiy jigéen jigéen lu rëbb na tamit jigéen ñiy góor góorlu ci maanaa nuru nuru lu góor abu hurayra radiallahu anhu nee na لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ينتبه صلى الله عليه وسلم ربنا غور جي سول تلوك جيجن ربنا تمت جيجن جي سول تلوك غور أحاديث يو يبنك ونننن غور دفور مويت دي سول تلوك جيجن دي وخ وخينو جيجن دي دوخ دوخينو جيجن جيجن جي تمت dafa war a moytu di sol colu góor di dox doxinu góor di wax waxinu góor kenn ku ne ci ñoom yàlla da ko bind ràññale ko moroomam ca bindin wa am ca ak jubloom kenn ku ne kon dafa war a ràññeeku ca la ko yàlla def rëbb gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rëbb góor guy jigéen jigéen lu ak jigéen juy nuru nuru lu góor mooy wane ne dafa xaraam ñoom ñaari jëf yooyu yépp sallallahu alayhi waxoon na sax saxaaba yi ne leen jigéen ñiy nuru nuru lu góor na ngeen leen génne seen kër yi ba sax sayduna abubakar radiallahu mas naa génne góor guy jigéen jigéenlu saydna omar radiallahu anhu mas na cee génne kenn abdullahi bnu amru bni al mas naa gis genn jigéen gu wékk ko fettam di dox dox yi góor mu daldi di laaj keekan la ñu ne ko ummu saïd bintu abi jahlin la mu daldi ne déggoon naa sallallahu alayhi wa sallam mu ne laysa minna man tashabbaha bir rijaali min annisaay jigéen juy nuru nuru lu góor bokkut ci nun ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb nag génn nga ci yërmande yàlla te ku yàlla yërmut sawara nga jëm wal iyaadu billah jëf yu xaraam yooyu nag képp ku koy jàpp ndalal ñi koy def yaag ñooma bokk rëbb moomu kon bokk yi nga xam ne réere yàlla réere seen diine moo tax ñuy jàppale noonu lislaam bi ñoo ngi leen di labiré ñu delloo ci seen xel xam ne daray àdduna jarut yenn yi te ci diir bu gàtt dinañu rendre compte seen borom dinañu ko layoo ëllëg ak seenu askan yal na yàlla nasaxal pexey noonu lislaam yi te gàccaal leen te gindi bépp jullit mu nangu dëgg te tege ca ñoo ngi leen di fàttali ñu gën a fonk salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy loo xam ne dara dara gënu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu